waaw dooleel ma dooleel koo xam ne yóbbu ma Paris Olympia kon lu mu xel damaa war a ñëw parce que yaay ju baax la yaay ju bëgg doom la yaay ju yërëm doom la te ku baax la ah, ah Viviane daal ku baax la si sëñ bi muy sëy sëy naa bi yal na am barke yal na ko yàlla sutural yal na ci am njaboot ju barke ci darajaay Seydina Muhammad lii nag dafa neex ñu dem ba bay langal say doom nga teewal sa doom dooleel sa doom ay kilifa ñëw dooleel sa doom sag la sag mu tawee su lii yal na ko yàlla defal jàmm jëkkëram tamit ku baax la yal na ko yàlla suturaal yal na ko yàlla may jàmm sëy bi yal na yal na am ay njabooti njaboot jërëjëf sëy naa xamat nanu sëy ndax nit ñi nanu sëy ndax medd bi nanu sëy ndax lu ñaaw nanu sëy ndax lu bon nanu sëy ndax ñi leen di xool nanu sëy te yàlla tax yal na sëy bi am barke si darajaay Seyduna Muhammad sëy naa nga muñ sëy sa yaay sëy sa papa parce que doom bi kilifa nga la jur lu xew sa yaay la ñuy taf lu ñëw sa yaay la ñuy taf lu métti sa la ñuy taf ak sa papa kon góorgóorlu nga taxaw sa yaay taxaw sa papa yal na yàlla sutura sëy bi yal na am barke si dara yaay Seydina Muhammad waaw. u nekk di génn di wax ci problème mu Zeyna ak jëkkëram te yàlla xam na ne peut-être xamuñ ci lu bari lu tax Sénégal célébrité bu ñuy sëy rek coow li bari àddina àddina moo demee noonu moo tax nit war a góorgóorlu ci sëy ba génn àddina parce que ñun sunu sëy bu tasee day teel a siiw bu feebaree day teel a siiw bu jabetee day teel a siiw ku ci amul doom sax day teel a siiw moo tax ñun yàlla nanu yàlla yàlla taxaw ñu ñu gën a mën a téye sunu sëy gën a mën a téye sunu doole gën a mën a téye sunu mën-mën gën a mën a téye sunu kàttan parce que sëy mooy lépp sëy mooy lépp na nit ñi xam ne ñun sunu sëy du yomb parce que tey lu ñu arrivé tey lu ñu arrivé danaa xamoon nañ ko gisoon nañ ko ñi nanguñu sëy tey ñu ngi nangoo sëy nit ñu nit ñee bàyyil ñu sëy waaye ñun ñu ngi sëy de nit ñee ñun suñu tas moo gën a siiw ci àdduna suñu feebar suñu ñàkk moo gën a siiw moo tax ñun nan ñu ñaanal suñu sëy yëpp am barke dara jaay seen naa xaman loolu may laaj parce que u Aby Ndour ñu ñu ngi siy wax lu tax ñawul absence u Aby Ndour lu tax ñawul euh, ci xew ki nga xam ne mooy Zeyna di doomam ci moom bon loolu nag ñoom la concerné mais c'est juste une question par rapport a yow tamit nga bokk euh, ci famille Ndourène yaag Viviane mun maa question mënoo maa posé question pare ne ñoom la concerné parce góor yoo xam ne day joxe mbootaay du ma góor yuy joxe ay warugar du ma góor yuy joxe ay kii da koy laaj góor yoo xam ne ñooy joxe warugar ñooy indi añu ndey ñooy indi reeru ndey ñooy indi reeru baay Aby Ndour bu ñuul est-ce que yëgal nañ ko ko. mais moom moom dafa bokk ci famille Ndour la sant ñi papay xale moo tax ba mu bokkee Ndour sant Ndour nga war cee maandu yow noo sant. non dama ne ñun ñoo xam waaw dañu yow noo non yow noo sant yow. Mbaye. merci Aby Ndour nu mu sant. Ndour. bu ma Ndour nu sant. Youssou Ndour nu mu sant mm. Birane Ndour nu mu sant mm. kon maandu leen ci nduureen gi ñun xam lu ñu am ñëw rek seetaan ci nit day maandu ci yëfi jab abi ndur ñëwul moom la concerné li tax ñëwul kenn xamul lan la nit dangay ngay maandu man li fi indi mooy fi yaana ma fi indi mooy sama yaay moo ma tax may ñëw mais abi ndur ñëw ak ñàkk ñëw ak loolu ñoruma parce que famille la famille la lu xew ñoom la man du ma joxe warugar joxe ma añu ndey joxe ma añu baay joxe ma joxe ma leen loolu dañ koy daaj góoru mbootaay yi indi añu ndey ak añu baay li ma ñëw muy ñëw sargal sama rakk taxaw sama yaay muy Viviane kii ñëw baax na ku ñëwul baax na. yi fekkee loolu ay joxe añu ndey parce que tout le temps da ngay wax loolu di ko cautionné. waaw parce que ndi góor gi joxe añu ndey mooy xam kii ñëw na wala kii ñàkk ñëw na xam a ñor moom laay seeti loolu da nga koy laaj góoru mbootaay yi bi abi nduur ñëw bi ñàkk ñëw fa bi la ñoom ñoo xool li leen neex ñu def ñoo xool li leen saful def est-ce yëgal nañ ko ko nit ki tamit mooy moom moom soo mais waxi dur moom maandu leen ci ngeen ay journaliste ngeen xool leen rafet wala ngeen def rafet yooyu gis yéen yéen fi sunu ngeen sa wax sa parce que lii xew euh, Viviane la xew euh, Zeyna Ndour la ay waxi Aby Ndour yéen a ko fi souligné bu leen fi indi loolu ah, jàmm tey bisu jàmm la du bisu du dëj du karatéka du judoka li bisu la xool leen lu rafet ngeen wax ko lu rafet ngeen def ko Aby Ndour bu ñëwul moom la concerné nit da ngay wax lu baax ngeen journaliste lu baax ngeen wax mais waxi Aby Ndour épargne ngeen ko teg ko nële ngeen wax waxi Viviane parce que loolu ay àddina waaw tey lu baax tamit moo ñu tax a jog mais dafa fekk kay ñoom ci moom ci famille la bokk te Ndour la sant ni ñoom looloo tax rek waaw da ngay woo Youssou Ndour wala Birane Ndour wala Ibou Ndour wala Bouba Ndour wala kii a laam Ndour nga woot le laaj leen man sant mu Ndour mbay laa sant da ko koy laaj waa Ndoureen wasalaam ñu ay ñaan bismillahi rahmani rahim wasalaam ok da ngay Gracias. loolu jarul wax xippi leen seen bët ngeen xool. nañ dem ba passé sécurité yi taxaw. waaw. Thank you.

vraiment ñu ñoom ko moom non non dama xam ne ñooy taayaay ngir bi su ngeen taxoon sax ñoom ñu génn ba pare moom waaw seen problème dix minutes rek ñëpp génn Papa. dañoo dem après ñoom bu ñëwee ñu dugal leen Je vais bien, comme ça, voilà, ça va. Ça va? Pas xaar ma dafa kii benn yoon rek Papa, papa, papa. Papa, papa. maa ma xoolal leen quoi. es là. Je suis là. Bon, pas.

léegi Sidi